képp ku ci ñak sa bakkan ñu ngi ñaan yalla na la yalla ajana jégal leen seeni bakkar légui waxtaan bi dañu bëgg xam Sénégal lan mo xew waxtaan ak yeen ci li xew Sénégal li xew Sénégal moy lan li xew Sénégal moy lan dafa am kenn ku jigen ku tuddu Adji sar ku xol benen citoyen sénégalais bu tuddu Ousmane Sonko ne da ko sàkku ci lo xamné ne d'accordu ci Sénégal nak, ku am lu la métti fi koy jooyee moo da ngay dem ci tribunal mu dem ci tribunal porter plainte bu mu porter plainte ñu gis ne ñom ñaar ñëpp ku nek da nga ne da nga yakamti dem ci procès bi ndax ñom ñaar ñu mënu leena ñu mënu leena a ba ñu ci procès ñom ñaar juge bi atte leen ci article 324 alinéa 2 Adji Sarr dafa porter une plainte pour viol juge bi mom mo nga xamné mom rek am sañ ne am wala mu jël ko requalifier ko mom kessé mo am sañ-sañ bob juge bobu mo jëlat les faits requalifier ko def ne li lim ci gis ne article bo ne na lañ article bo képp ku xalé bu wala bu amagul ñaar fukki at ak benn nga jël ko foyee ko ci sa dayu sa sa dayo walla ci sa alal article boobu de nee na ku def loolu noonu dañ lay daan ñaari at minimum ba ci juróomi at juge bi nag xool ne pourtant de ka ñuy accuser bien que ñëwul mënon na ans yi nga maximum Le juge bi jël deux bi gëna a ndaw ans mu ko loolu sax jaaxal ñu bari nak lu muy lan justice su Sénégal mom mom Nous ndax du fekkone ne du Nous dañ koy dicté du jël du jël daan bi gëna a ndaw day daan bi a mu juge article bob ñuy wax ak Sénégal

dootuñu waxati lii ndax li fi daanu ci ay bakkan bari na waaye naroon naa gën a bari lii yëpp moo tax ñu ngi leen di jëfal te di leen ñaan tamit ñu continuer professionnalisme boobu ñu am ñu continuer koo téye di ñaan nag jeunesse su Sénégal yéen laay woo jeunesse su Sénégal ñu ngi leen di ñaan ngeen dal ngeen delloo ci seen xel xam ne àdduna lépp lu ñu waxtaanewul doole du ko fi jëlee loolu la président Macky Sall xam moo tax mu woote dialogue national dialogue national bi oo na ñëpp pour ñëw les problèmes du Sénégal képp koo xam Sénégal nga bugu. Sénégal moo la ñor da ngay dialogue national pour waxtaanee les problèmes du pays. ndax su dul amul feneen foo ko mun a amul feneen foo ko a ñu ngi ñaan président Macky Sall dal bi ouverture pour mun a woo ñëpp. ak ñëpp na dem wuy Benno Yaakaar en France